ñu euh, maa ngi leen di delloo ziar baax di leen béggee bu baax baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bu baax a baax. waaw euh, ñu ñu ñu ñu sant yàlla bu baax. Euh, am mbégte contentement teew ci appel bi ndax fii bu ñu fi teewee ngënal rek lay nekk ci ñun parce que ku ne xam na Baye Laye li mu liggéeyal lislaam ku ne xam na Baye Laye li mu liggéeyal diine. te bis bu toll nii ak woote bu toll nii eh, ñëpp mun leen kaay ma woo leen ci yàlla kon tey ji bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a wuyu ji yàlla képp da ngaa war a ñëw wuy si baay lay moo tax appel bi képp koo xamante ni eh, jaamu yàlla nga rek danga war a ñëw wuy si moo tax ñu ñu gëm ni appel bi kenn waru koo manqué kenn waru ko wuute moo tax ñu def suñu teewaay ngir ñaan ngir eh, def ay Euh, barkelu yoo xamante ni lépp rek ngir bëgg xéwal yi nga xamante ni moo fi am jugee ci li nga xam mooy yàlla ci barke Baye Laye. nga doon comédien doon porteur de voir ñu gis nouvelle tendance bi am ci réseaux sociaux yi yore sa TikTok nekk sa profil doo wone sa photo di wax lu la neex di saaga kilifa diine te ñu ci bëri boo déggee seen baat ay baatu ndaw la lay jox tey nga nekk ndaw ñëw fii uyu si appel bi lan ngay seex ne ndaw yooyu waa li ñuy wax xam nga am na lu rafetul moom kenn ñemewu rafet rafetlu euh, du loo xamante ne lu rafet la te bu ñu sañoon réew mi loolu du fi am ndax euh, nun amuñu lu ëpp kilifa diine yi parce que tout euh, ndakaaru wala sax Sénégal boo ko waxee li ngay njëkk a tiitaroo ci Sénégal mooy kilifa diine yi fi ne kon tey jii ñun suñu sécurité kilifa diine yi la kon tey ji suñu sac kilifa diine yi la kon du ñu rafetlu benn yoon kenn di yëkkati kàddu di leen wax lenn loo xamante ni Euh, dafay teg ñàkk a tegginu waaw dafay dafay dafay dafay ñàkk nekk loo xam day na ci yar ak teggin kon loolu moom lu ñuy ñaawlu la di wax ni jeunes yi tey jii li ma leen di conseillé rek mooy nit mën nga wax sa message mën nga wax li nga bëgg a wax léeg sax mën ngaa mer bëgg a wu waaye ci sa mer gi ngay mer ak ni ngay manifesté woo itam bu mu tax nga wax loo xam ne boo ëllëgee da koy rëccu parce que internet dafa nekk loo xam ni loo xam ne bu duggee ci biir mën naa toog cent ans du fa deñ say sët war koo fekke say mbokk war koo fekke te nit ku ne war naa soolaan li mu doon tey bu subaa mën naa doon leneen lu wuuteeg loola tey ji mën ngaa doon ñàkk solo lool bu ëllëgee nga am solo te amaana mën ngaa bañ ñu indi la sa wax ya nga waxoon te am na wax yoon bu xasee ba génn dootul duggaat moo dafa jar moytu dafa jar sooraale ba lépp loo xam da nga koy génn ci sa gémmiñ gi génne ko mu leer ne lii li ma génne de bu ñu demee ba cent ans bu ñu ko tegoon samay kanamu doom samay kanamu sët du ma rus du ma sëgg moo tax loolu dafa dafa am solo ñu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaw. waaw ah yow tam xam nga célibataire bokkut ak marié te pata bu marié dafay wuuteeg nag <laughs> xam naa xamal ne ma wax xam nga pata bu marié day wuuteeg pataab célibataire <laughs> loolu day wuute <laughs> moo tax fi ne nii sant yàlla rek mi ngi fi mi ngi fi mi ngi ci jàmm bu baax a baax. xam na ne moom mooy bàjjenu Seydina bu Sénégal. Mère Dial xamul ne. ah ah kii ah, <laughs> borom xam nga fi ne réew mi moom ku am lex meer jaale sa bàjjan loolu la yàlla dogal <laughs> ku ci am lex rek gis ci sa bopp te xam ne askanu lex noonu la ko yàlla jagleel kon ku am lex rek xamal ne mooy sa bàjjan maay sa rak bàyyi maay sa mag c'est la famille Lakhane. bu ma déggee dina ma dóor waaye garaawul. sama copain daa mel daa ne xëloo de daa jàpp yow yaa dañ ko dugal man loolu duma ci wax. ni ngay imité ni ngay imité président de la république Macky Sall am nga ci ay retour mus laa woo wala stafam wala. président de wax dëgg yàlla nag musuma musuma woo ah musum ci benn retour waaye ñun liñ ci jublu rek moom mooy. Euh, du question que dañuy def dara pour pour pour xaar sax kuñ ciy woo waaye kuñ ci woo ñu jël mais li am solo mooy tey ñu nekk ay comédiens yoo xam dañ gis ni ñun Sénégal euh, pour mu stable ñun dañ ci am rôle bu am solo. maanaam Sénégal pour mu am jàmm ñun dañ cee am rôle bu am solo koo xamante ni ñu ko gisee li ñuy njëkk a def mooy reetaan boo meree li ngay njëkk a def mooy kontaan kon bu ñu gisee réew mi même bu nekkee ci ay ay fitna wala lu mu mënti doon xool yi jugandoo ñun suñu rôle rek mooy fexe xool nu ñu defee noo xamante ni ci camp yëpp muy opposition muy pouvoir ku ko seetaan rek da ngay reetaan xel yi mën a delsi bu waa ku def ah. muy ah léeg de mu ne ko maram <laughs> yow koo ruubee nga bëgg duma la faale dañoo ne ci appel ah. waaw waaw waaw waaw bu doon woo président Ousmane man li ma yaakaar mooy bu koy mën na ko allo Ousmane na nga def booy Sonko ça na naka tey booy man daal li mu lay ñaan mooy xoolal waxal sa booy yi su ko defee ma wax ak sama booy ñun ñëpp ñu juboo nga wax say mag ma samay mag affaire yi juboo jàmm am Sénégal parce que Sénégal ñu yow nga xam naa la booy bu baax nga booy bu bien nga amoo benn kii saytaane moo dugg suñu diggante nañ jël saytaane rendi ko nekk ci jàmm ak ci salaam parce que Sénégal jàmm rek moo fi war a nekk te xam naa ni boobaa Sonko danaan ko amul benn problème Sénégal gis nga li muy réy xam nga lu ñu gën a bëgg jàmm maa la wax lii keroog bi may joué euh, soraano ak euh, Demba Gisé ñu def benn spectacle dañoo def président Macky Sall ak Sonko joxonte loxo longo nit ñi seen xol dafa sedd mel ni dëgg la mu lenn bu amoon ci réew mi noonu la xol yëpp di sedd dina mel ni bañ jëlee Coupe d'Afrique maa wax loolu waaw. jërëjëf amin yaa rabbal mi ndax jàmm rek moo moo moo gën lépp waaw lu dul jàmm daal jàmm ko gën. mère Diall ah bàjjenu seen famille Lexen jeex naa ko nuyu. <laughs> maa ngi lay ziar. lan nga ñu mën a wax ci appel bi mu nekk 143e édition. waaw da sant yàlla rek. ndax ñun fii daanaka fii laa dëkk. Cambérène 2 yaakaar naa ne ku xam baabooy xamee ko fii ku xam baabooy xamee ko sëñ Mor Laay mii muy këram. Euh, c'est normal tey sëñ Mor Laay yàlla ko yàlla xare àjjana ak mbooloo mu jullit. tey bu demee bàyyi fi njabootam kon ñun dañu war mooy ànd ak njabootam ndax lu mës a xew fii ñun ñoo koy bokk moo mësaan a bëre sama kër a nii ñoo fi nekk ñun ñëpp Ablaye Thiaw Laay mii saa yi ma mësaan génn di bëri moom moom mujjee ñaanal kon moom suma rakk la waaye suma sëriñ la suma xarit la suma lépp la ndax baayam yàgg na ma ko dénk mu nekk xale mu yàgg damaa taq xam naa ko teg ci Rose Diagne mi nga xam ne mooy soxna sëñ bi moom ak sama waajur bu jigéen ay mbokk noonu si Basirou Diagne kon ñun famille nanu ndax foo dem ay 15 ans 20 ans ñooñu ay famille nanu fii sama kër la tey ni may demee di màggale tuubaa di ko préparé noonu laay préparé appel laayeen ndax jëmm ji kon dañuy ñaanal suñu Ablaye Thiaw Laay mi nga xam ne tey moom mooy xalifa kër gi yàlla na yàlla guddal fanam di ñaanal waajuram Rose Diagne yàlla na ko fi yàlla yàggal mu uuf ko gunge ko ndax xalela bi nga xam ne am na yar am na teggin respecté na nit am na kóllëre di nax naak wax di sant laayeen yëpp ndax tey bu Tuubaa xewlee laayeen na nga fa bu Tiwaawan xewlee laayeen na fa Njaasaan kon kër diine yi ñoo bokk ndey bokk baay message bu may mën a joxe mooy lenn message laa bëgg a joxe ci Sénégal ñu xam ko mooy nanu respecté suñu kilifa diine yi ñii di nekk ci ay TikTok ci internet bi di wax kilifa diine yi nan ko arrêté dañ ko arrêté man nag li may ñaan mooy kilifa diine yëpp kër diine yëpp danoo war a jël mobiliser kër diine bu nekk ñu jël fa ay nit ñu toog waxtaan ba nga xam ni képp ki nga xam ni déggati na la nga wax benn kilifa diine dara ñu dal sa kaw. waaw ndaxte fu mu toll nii dara de su si ànd loolu jaamu yàlla nit ñi nañ leen bàyyi wax bu bon nañ leen bàyyi yàq der. na leen bàyyi ak xeex dëkk bi jaamu yàlla moo fi des na leen góorgóorlu di jaare suñu mbokk chrétiens yi boo leen xoolee ci yar ci teggin danoo jàpp ñun tamit war nanoo gën a góorgóorlu bàyyi saagante yi bàyyi xasante yi te xam ni bàmmeel ah ñetti fan bàmmeel lu jar a la de maa ngi jégalu ñëpp nag allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf. maa ngi lay. maa fay soxna si di la ziar bu wér a ñu la fekk fii tey ci appel bi ci sëtu Seydina Issa Laye lan mooy sa kàddu ak sa relation ak seen. Laye Makhtar Laye Laye Seydina Issa Laye yàlla na ko fekk ay déwéni déwéni déwén ndax euh, këru ne ñëpp benn la man fu ne am naa fay xarit fu ne am naa fay soppe fii ma nekk nii Ablaye Thiaw Laye sama xarit la sama soppe la sama sëriñ la Ibou Sène tam waxi nopp euh, bëri naa fi xarit daal Cambérène waaw ñu baax ñëpp samay xarit lan man soo ma fekkee fi doon na ma fan laa nekk laay Thiaw kër ab laay Thiaw laay sama xarit la sama sëriñ la moo tax nag su ma fi ñëwee war naa fee ñëw tubaarikàlla soo ñëwee fekk fi nit ñu baax ñëpp ndax moom xaritu ñëpp la te dafa baax dafa te waajam mu góoru tamit noonu la mel waajuram mu góor tamit noonu la mel baax tubaarikàlla macha allah xoolal tey maa ngi yaa ngi fekk ma toog baaboo yi ah moom ku nekk xam na diggantam ak Ablaye sëñ Ablaye Thiaw ah man tamit waxi nopp kon soo fi fekkee doon naa cam këru diina yëpp benn la moo tax réew mi jàmm rek a fa war a am jàmm rek a te jàmm la ñuy ñaan te jàmm mooy am Sénégal ndax ay nit yu baax a fi tëdd tey fan nga nekk yaa ngi Cambérène Seydina Issa lay Laye Makhtar Laye na soo demee Tivaouane waxi nopp nga dem euh, tuuba Serigne Touba nga fa nga dem Thiénaba dem kër jàngu bi dem kër jàngu bi adduna Sénégal ñëpp benn lan ñëpp benn la Cenaba ñaseen yi ñëpp benn la ñëpp benn la moo tax def lu baax rek a am solo yal na nu yàlla defal jàmm appel bii nga tey nga fekk ma fii ci Cambérène ngeen dékk ma micro yàlla nañ ko defat ay ati ati ati ati at te këru diine yi xalifa yi yàlla leen fi yàlla yàggal yàlla leen fi yàlla yàggal fépp fu këru diine nekk rek yàlla leen fi yàlla yàggal xalifa yi Sénégal daal yàlla na fi jàmm sax ndax ñun jàmm la ñu xam jàmm la ñuy woote ndax àdduna amul solo àdduna amul solo ana sunu maam yi ñoo fi nekkoon tey ana ñu dem nan démb sunuy papa ëllëg ñun yàlla na yeex kon nan ñaan jàmm ci réew mi yàlla na fi jàmm sax jërëjëf tey nag fii nga ma fekk nii kër Ablaye caw vraiment sama xol dafa sedd kër Ibou Seyni laa jógee tey nga ñëw fekk ma fii kër Ablaye Thiaw yaa sama waa ji ma doon def ñooñu dañoo alk loolu koo ko def da ngaa kilifa diine yi. ah ilaha illallah Muhammadu su loolu man bëgguma koy dégg sax. safurla safurla safurla suñu kilifa diine ñun ñu yaakaar ci ñoom ginnaaw yàlla ak yonte bi di dem di leen dëkk suñu loxo ñu ñu ñaanal ñooñu suñu leen joxul fekk la ñu toog ñu jox leen addiyee kon nañuy wax wax bu rafet nañ leen di wax wax bu rafet waaye wax ju ñaaw baaxul wax ju ñaaw baaxul wax ju ñaaw baax su suma suñu kilifa diine yi ñu dañ leen a war a ñaanal ñu yàgg fi te wér tey Sénégal su fi jàmm amee te jàmm di fi sax te jàmm moo fi am sax ñoom ñoo ko fi ñaan ndax jàmm rek la ñuy woote Sénégal te ñun tam jàmm rek la ñuy woote Sénégal yàlla na sax Sénégal képp kuy wax nag kilifa diine nga di ko wax bu ñaaw ah man de yàlla bu ma la xam jéemu ma laa xam jéemu ma jege foo jaar sax du ma fa jaar koo jaar du ma fa jaar di ko wax wax ju ñaaw ah, dëkk du ma fa jaar foo jaar du ma fa jaar jéemu ma laa xam lijjantiwuma ndax man nag ku baax laa te lu baax laay def fii ma fekk nii sama xarit a fi nekk sama sëriñ mooy Ablaye Thiaw sama xarit la tey fu ma dem këru diine foo dem am naa fay soppe am naa fay xarit ñépp ma bëgg kon nag yàlla na jàmm sax Sénégal nañuy waxante lu baax di ñaanal suñu kilifa diine ñu yàgg fi wér. ndax ñoom yàgg fi sunu njariñ la ñun ñoom ñu yàgg fi sunu njariñ la suñu leen mënut a waxal wax ju baax nan téye sunu làmmiñ. Euh, euh, euh, xàmmeetuma Sénégal xàmmeetuma dëkk bi. état lan moo ciy taxawaay parce bu ñu seetloo ñi koy def. ci internet li ciy taxawaayam loolu li ciy taxawaayu état ku nekk fa nga nekk di wax wax ju ñaaw ñu fekk la fa tënk la yeew la indi la réew mi ne la ràpp ci biir kaso bi. ne ràpp ci biir kaso bi loolu mooy loolu état ci loolu ndax toog fa nga toog yor sa téléphone di wax wax ju ñaaw. donc kilifa diine yi ah ah ah ñu koy def yërëm naa leen yërëm naa seen i mbokk di ñaanal sama rakk ji nag. ndax mënut ta ñàkk ndax fi nag maa fekk tey ci bis bu sell bi muy appel bi laay maxtaar laay sama rakk sama xarit muy saa kees jëm ci bis bu mag la cinq di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barke ju bëccëg gii ñu nekk muy appel bi di ko ñaan kilifa diina yëpp ñu ñaanal ma ñaanal sama rakk ji la cinq yàlla may ko ndam lu sedd guy ah, ndax wax ji bari na coow li bari na ñi xamul la ñuy wax di ratatat rek soo waxee ñu ne kële mooy favori ñun nanu ànd ak yàlla tey de ñun dañuy ànd ak yàlla tey ñaan yàlla yàlla may ñu ndam la cinq saa kees yàlla may ko ndam lu sedd guy ci barke bëccëg gii ñu nekk di ñaanal këru diina yëpp ñu ñaanal ma yàlla may ndam sama rakk ji saa kees voilà ak euh, jàngu bi jàngu bi jàngu bi maa ngi leen tàll samay loxo dina ñaan tamit ndax Sénégal ñëpp benn la ñëpp benn la yàlla na fi jàmm sax yàlla na fi jàmm sax jërë ngeen jëf di ziar ñëpp ñu ngi fekk ci base maa ngi ziar ñëpp sama xarit yi ñëpp maa ngi leen ziar ah ah, ah madul yaa nga dugg bëgg dugg ci waxi làmb ndax soo waxee Bombardier euh, li ma laaj foofu madul soo ma ci laajee dama ci sawar a wax Bombardier champion la lu ne def na ko ci làmb jaloore bu ne def na ko Bombardier du ragal du yaafuus te du tappale soo gisee loolu ma wax dafa am ay rumeur yi ma doon dégg moo tax rumeur yi ma doon dégg mooy la combat bi passé dafa yomb moog Tapha dugg ci géew bi jàppante rek mu jàpp loxo ba blessé fu ne lay jógee blessé fu ne la mun nga tëdd sa lal sax jóg sa tànk karamp doo mën a tàllal sa tànk nañuy waxante lu baax di jëf-jëf ju baax di wax wax bu baax Bombardier champion la def na fi loolu ki mu doon dajal tamit champion la ndaanaan la ndaanaan la doon dajal muy Tapha Tine Tapha Tine champion la Bombardier du ragal champion la yàllaa ko tudd nañ ko ñaanal mu wér ak jàmm delluwaat ci arène bi ndax Bombardier du yàq làmb te ku mën bis la waaw ku bis la yàlla na ko yàlla defal jàmm mu wér ak jàmm ñëwaat ci arène di ñaanal sama rakk ja Balla Gaye 2 yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko waaye combat bu leen wax loo ci waxi làmb waaye yaa may dugg la combat combat combat Tapha Tine Lac de dafa war a taxaw coow li bari na lool ndax euh, Tapha dafa am fu mu jaaroon ak euh, Lac de Guiers Tapha Tine dafa am fu mu jaaroon ak Lac de Guiers Lac de Guiers daan ko bu kenn dugal si yooyu na ñëw jël revanche ci Lac de Guiers ndax combat bu yanu la maanaa la. combat bu yanu maanaa la Lac de Guiers Tapha bu neex la. waa dañuy wax leen neex rek ah, ndax Balla dafa nekk ci xolu xolu nit ñi Balla daanaan la te borom jom la te dafa am fulla dafa am fayda Balla Gaye borom jom la te dafa am ful la dafa am fayda te bañkat la Balla Gaye bañkat la nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ñii wax lool dañoo xamul wala doon ay suba Balla Gaye réew mee ko ba la bëgg Balla Gaye mooy adduna Balla Gaye mooy Sénégal non non non non non non non non non non cam laay Balla Gaye du tappale Balla Gaye ndaanaan la yàlla na ko yàlla defal jàmm nañ ko yéene jàmm daal ndax moom borom jàmm la te ñëpp la yéene jàmm yéenewul kenn lu bon nañ ko ñaanal jàmm rek sama rakk jooju yàlla na ko yàlla defal jàmm sëñ Cissé mu sëñ Babacar waaw waaw waaw mi ngi ñëw léegi léegi mi ngi ñëw nii maa leen ziar ma doon jërë ngeen jëf yàlla na yàlla defal jàpp Géejawaay daal xale yi fa am combat yëpp yàlla na yàlla may ndam ndax yaa ma duggal ci waxi làmb nag tey dañoo ñëw ci appel bi nga dugg ci làmb ji waaw ah waaw waaw waaw waaw sunu doom la sunu doom la yàlla ko yàlla dafa jàmm loolu lépp waxtaan la